kay <laughs> Bamba ñu bàyyi la nga présenté wu bu baax a baax donte présenté wu nga woon mais tey jii bëgg nañu xam euh, kan moom mooy Bamba parce que comme ni ma ko waxee euh, siste bi rek. Euh, ni ni ñu koy gisee ci réseau yi noonu lañ lay gisee aussi yow tamit ci réseau yi. wax dëgg yàlla ngeen nekk ay ndaw yoo yooyu engagé yoo xamante ne si bëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen ay leader ku ci mel ni Sonko ak ki nga président Diomaye. Mm-hmm. Bamba bëggoon nañu xam tuuti kan moom mooy bàmba waaw Bamba Niass benn ndaw la boo xam ne ñu ngi dëkk Touba fa la juddoo en temps bari na jaar-jaar nag jaar-jaar boo xam ne xajul ci benn émission. waaw mhm. sama jaar-jaar bari xajul ci benn émission loo xam ne si ne dafa dafa gudd mhm. mais pour pour résumer ci lu gàtt rek Touba la nu juddoo fa la ñu yaree fa la ñu màggee. Mhm. dund nañ fa lu ne ko dund nañ fa lu ne tamit te it bi ñu nekk ay ndaw nekk fa ci li ñu nekk nii mooy di xeexal sunu réew dañ ko yàgg bëgg. dañ doon xeex si suñ mbiru koñ waaw di ko yaatal ci ay gox ba yàlla def ñu dem bay xeexal réew mi yëpp parce bi ñu nekk Touba ñu ngi doon taxawalee association bu tudd axlul xidma doon bale koñ bi di ko set setal xam bu koor gi ñëwee ñuy def ay ay ndogo aussi maa ngi nuyu ki nga xam ne moo ñu fa nekkale instant bii nii di ji muy njaw pen maa ngi koy bu baax a baax en temps def naa yenn métier yu bëree bëri mhm. def naa métier yu bëri macha allah métier bi ma bëgg a def mécanique laa njëkk def. sama benn grand bu ñuy wax Ibrahima Sow maa koy saluer passage di ko nuyu bu baax. Euh, moo a jàngal mécanique afta loolu ma jóge fi dem sama bàjjen Mbour continuer fa mécanique bi affaire yi xaw a dëgg dellu si waat Touba. xam nga jàppale paa bi tuuti parce que ci job bi. duggaat si beneen métier. Mm, mais métier boobu du genre dama ci mujj génnaat quoi parce que am rek. sun sun suñ famille daa am affaire yoo xam ko gëm quoi bëgguma sax di ci sori mm-hmm. bi ma génnee ci loolu aussi tooguma def naa def naa di genre coiffeur def naa ko mm-hmm. waa si dama lu ma la wax sànq la quoi dama dama bëri jaar jaar après coiffeur bi dama ko boole woon ak élève jaay ay ginaar du ma bëgguma toog daal quoi c'est que ça damay bëgg di di yëngu si dara te li may ni may yëngoo ci dara noonu laay bëgg tamit di fexe ba koñ bi lépp lu fi salte lu fi kii ñu wax ci ndeysaan ëpp woon xam-xam ñu ngi fa ëpp ma ëpp ma moyen ëpp ma xaalis mais dama ko doon jaayante rek. Mhm. waaw ba yàlla def ñoom ñu jóge fa dugg dakaar yàlla jaarale ko si suñ benn waay bu ñu wax Bamba Diop euh, ñu ñëw suñ benn grand bu ñuy wax Maam Góor Guèye moom maa koy nuyu bu baax mu ngi 22. Mhm. ak gars mi nekk foofu yëpp ñoom dafa ak góor ak booy yëpp maa leen di béggee si leen ñëw commencé commercial bi. vendeur mhm. di job affaire yi di di jàll di dem di dem. ba yàlla defal ñu fa benn ndog ci ci ci foofu ñu doon liggéeyee. oto bi ñu doon joobee ñëw ñëw ñu def ci benn benn soog bu xaw a metti après xam nga heureusement yàlla dafa kenn gaañu ci ba ñu fa génnee ba ñëw kii GM suñu grand bi di seex mhm. nekk fa voilà ci loolu laa laa la mën a tënkal ci si sama jaar jaar côté mm. liggéey yeneen yi nag moom ay yeneen affaire la yoo xam ne xajul ci benn émission comme nu mu la ko waxee waaw foofu foofu laay bëgg a dugg nii comme ñu wax nga li nga xam te ne mooy sa jaar-jaar ci liggéey yi nga xam te ne def nga ko macha allah euh, mu mel ni dama daal di ñëwaat rek ci ndaw Pastef fii nga xamante ne si ni euh, moom ngeen nekk na loolu ngeen tuddee seen bopp euh, ñu gis la ci réseau yi peut-être ku mel ni benn fafaa ci réseau yi la la xamee wala benn Amadou wala benn Sadikh ñu gis ngay xeexal sa réew sa sa relation ak Ousmane Sonko wala ndaka la demee. bëgg gi nga ko bëgg topp bi nga ko doon toppoo euh, ndaka la demee. waaw yàlla moo ko def nekkul nekkul lu ma nit forcé wala lu ma nit wax bamba toppal kii parce que dafa baax man maa ko xool xool jikkoom xool doxalinam ak dëggoom ma bëggal ko sama bopp ci bëgg googu réccu ma ko quoi su mu ne la man mosuma teg Ousmane ba doo ma gëm xaw ma lan la su ma nekkee su ma nekkee si yenn milieu ba mu war a ñëw sama xol lay tooy quoi en fait. ndeysaan moom la mën a expliquer day day am lu may jëkk. daf bëgg. boobu yàlla moo ko def ci man xam ma lan la mm-hmm. yàlla moo def ma bëgg ma mosuma ko teg bët barke Seydina Mohamed mosuma teg bët Ousmane su ku ma ko wax doo ko gëm ak li may li may reyante nii yëpp mm-hmm. mais dafa nekk mbir moo xam ne yàlla moo ko dogal quoi. Mm-hmm. yàlla moo ko dogal Ousmane nit ku sell la. nit ku sell la ku sell mhm. nit ku baax la aussi parce que man man du ma bëgg ko bon. parce mhm. que alxuraan mënu ma wax ci moom mënu ma wax ci moom xaw ma xaw ma li yàlla moo ko def yàlla moo ko def. genre mhm. bëgg mu ko bëgg. yàlla suñu borom moo ko def. yàlla dimbali ma beneen affaire sama papa ak sama yaay aussi noonu la ko bëggee. bilaay sama yaay def waa dafa may woo Bamba. ana Macky Sall waaw mi ngi fi mu ne waaye du ngeen ko def nangam mu jóge fi parce que dafa ko doon meree dafa doon mere quoi mais moom li mu def ci ñun ak ak ni ko bëggee man mënuma la expliquer lan la xaw ma xaw ma sax du jekki saala dugg si man. macha allah. Ousmane ci ci problème man dama daan tëdd guddi nii di jooy di jooy du sax comprendre parce que nitu yàlla dëgg la. nitu wallaahi taalaahi man man su ma jàkkaarloo moom li may gis ci nitu yàlla bu àgg si yàlla suñu borom loolu laa gis yow. bu leen yàq émission bi nag bëgguma di wax si moom. Mhm. bëgguma sax di wax si moom mais bon ñu sant yàlla bu baax te di ko ñaanal li ma duggoo yàlla suturaal ko bu fekk fu mu bëggee jëmale Sénégal mu àgg fa. te am nañ ci yaakaar ndax nit ku gor nit ku sell la te ku gëm yàlla la te dëggal ko bu baax. te dëggal allah nit ku gore la nit ku sell la ngeen bëgg ko te yàlla tax ba mu jaral leen ngeen di tuur li nga xamante ne si moom mooy ay ay ay xéewal wax nga ko léegi say biir wax mu mu xam nga mu jaar ci yenn euh, tolof tolof parce que noonu laa ko mën tuddee tuumaal nañ ko fii arrêté nañ ko fii coow li bari woon na jeunesse bi xaaj bi bari ñàkk ci li nga xamante ne moom mooy seen ay bakkan nga gis euh, même ci euh, manifestation yi sax da daan gis magum jëmm moo xam pa moo xam meer daan dañ daan dañ daan forcé di di xeexat li nga xamante ne si moom mooy Ousmane Sonko euh, ñu gis ni que bi mu demee ba xam ne affaire yi gars yi euh, ñu ko boole ci élection yi mu ne Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko yéen ñi xamante ne yéen ay ndaw yi ngeen euh, ànd tamit ci loolu mu mel ni cofeel gi ngeen amoon ci Ousmane Sonko bi mu ne leen Sonko moom mooy jomaay rek yéen ñëpp da ngeen a daw ci li nga xamante ne si moom moo di jomaay. waaw parce mooy li ma la wax rek gis nga doomu aadama bu dëggoo. gëm yàlla te te nekk nit koo xam ne ku jub la lépp lu mu bëgg yàlla dafa koy defal parce que yàlla moo moo fi ne moo moom lépp mm-hmm. te chaque jour dañuy wan boppam te c'est benn waxtaankat Baye Ndiaga Diop day wax ne lu nekk si baraar bi bu dee dëgg la lu nekk si kaas bi dëgg la parce que ci lañ ko xeelee mm-hmm. kon sonk bu ne ñoo joxoñee jomaay ñun ñu dem si jomaay comme que Sonko ci Sonko lañ dem quoi mm-hmm. loolu moo tax ñu dem si moom ànd ak moom nag ak lu ñu ci mën a fekk lu ñu ci mën a daj dañ koy gérer parce que ñun ñoo ñoo ñoo bëgg loolu ñoo engagé wu ba ñu ci woon dee ba ñun ci woon ñu tëj ñu lu nekk daj nañ ko si waxoon parce que moment bi nekkoon du moment wu wax te nit ñi doon doon xool si ñun pour xam nga yokk seen fit yokk seen gëm-gëm léegi ñun bu ñëwee taxaw seen kanam di di yërëmtalu wala dara rek day metti li gars yi di daj li gars yi def yëpp def nañ ko jàpp nañ ñu ci tëj nañ ñu ci génn nañ te mosuñ ko wax nit après élection yi lañ koy doog xamal wax gars yi ne leen ñun mos nañu arrêté. waaw. mais bon sant yàlla daal comme que ñun li taxaw ñuy xeex am na mooy lan samp projet bi. Mhm. mais loolu jàllee dafa am beneen liggéey beneen liggéey bi mooy lan jàppale président Diomaye ak Sonko. Mhm. ba ñu tabax Sénégal defar fi lu fi bëgg a defar ci côté mbay bi ci côté càmm gi ci côté napp gi. Mhm. muy muy ëpp soro ak ak commerce bi. parce que dëkk boo fi gis mu dox rek yooyu moo ko doxal quoi. te yooyu bu doxee rek incha allah rabi ku nekk day gis sa bopp. man nag bokkuma gars yi nga xam ne di genre dañ naan Ousmane dafa war a def lii dafa war a que bu ko defee rek day mel ni que man. Ousmane dama ko jiital ba pare di ko fakkasal te man su ma yeewoo si politique yow nga yeewu si fa kii mi yeewu ci soxna jaara bi Ousmane la comme kooku moo ñu yee wan ñu système bi fi nekkoon depuis 1960 dafa leen doon nax dafa leen doon tuur la ndam ban yeewu ci ba jële fi ñooñu bu toogee nañ ko bàyyi mu doxal mais kooku du ku ñuy teg ci yoon naan Ousmane day wax ne def leen ñu def mais du ku naan jaaral nii waaw day wax kuñ naan defal ñu def voilà moom danaan gars yi def leen ñu def mais ñun nekkul moom ñun ñoo naan Ousmane defal lépp lu gars yi xalaat seen xel yi Ousmane xam na ko. parce que mu leen daan wax boo wax leen lu ñëwagul. ko kon jarul rey sa bopp naan Ousmane dafa war a def mais li ñuy wax daal mooy dëkk bi nan nan jug ñu ñépp bépp ndawu senegale jàppale suy Seydina Ousmane ak jomaay ba lépp lu ñu bëgg a liggéey ci senegal ñu liggéey ko te xam nañ ne mën nañ ko quoi. Mhm. xam nañ ne mën bu ngeen di bu ngeen di dégg euh, soxna jaara bu ngeen di dégg yenn ci commentaire yi wala yenn ci nit yi ñu naan. Euh, Euh, Ousmane ak Diomaye euh, trop tard euh, dina am seen diggante sooy dégg ñuy wax loolu parce que ñu bari du samay wax nag léeg nga gis ko romb ko ci commentaire wala dara ñu ne daf ko jiital ba pare